maanaam Racine bi mu ñëwee ba léegi xam nga ñaata oto yi mu yor moom oto yi xam nga ñaata ñaata la ci xaalis. Mhm. bi mu ñëwee ak léegi 162 millions ci oto moom dong. oto oto kan entreprise ay oto moom. moom moom oto mi muy maa ngi ñëw. Racine ñeenti oto la yor ci koo xamante ni bii décret dala ne am nga droit benn oto de fonction PCA am na droit benn oto de fonction muy li ñuy wax décret bi consacré voiture de fonction moom benn PCA benn. Racine. na nga Ben Ben Toyota Pajero DK 89 61 AT acheté en 2012 à 43 millions Racine la jël ko def ko Toyota Pajero DK 49 30 acheté à 73 millions en 2017 Racine la jël ko def ko momel bopam. Pajero Sport DK 04 72 EX acheté à 23 millions mis à la disposition de sa famille. muy dem marché li leen ndugal yi ñu jël chauffeuru RTS muy dawal oto boobu ak benn Pajero Mitsubishi TD boo xam te ni li gën a grave xam mooy oto boobu dañ ko jox nit kuy dem TDS ñu affecté TDS ñu war a dem rejoindre. Mhm. ñu àllal oto boobu oto boobu kooku fi ñu doon ni jël na ko léegi naa maye na ko maye na oto ba kon patrimoine RTS oto yi nga xamante ne bii lii moom xam nga raas yi moom la jël donc boo calculer lépp ça fait 162 millions.

maanaam jël oto RTS yi jox ko ñi nga xam moom ñoo ay jegeñaale. mais mais ba ci jumtukaay sax dégg na RTS caméra ya ak ya fa nekk ci bagage yi baax bëreetul. non loolu projet la boo xam ne gàcce ngaalama jiite réew mi président Macky Sall li mu def ci RTS ci alal lu bëri la. dafa jël alal ay milliards treize milliards ci matériel am na ci oto boo xam ne sax dañ koo indi rek mu yàqu ñu delluwaat ko Belgique. treize milliards ci ay caméra ci ay moyen STR macha allah ci wàllu moyen mais ni ñu ko géré ni mu ko géré moo baaxut moom Racine Talla ndax li ko war xam mooy lan dafa dafa am ñu ko wër ñoo xamante ne bi duñ ko wax dëgg ñenn ñoo koy wax dëgg muy ñun rencontre statutaire te amatul maanaam ay DG DG toog ay directeur am jàkkaarloog ay. Euh, syndicaliste wala ay délégué du personnel ñu lay wax li xew ci kër gi DG fekk romb nañ fa lu baax baaxul nga defar ko DG lii DG laa nangootul loolu nangootu ko. ni koy wax euh, lu mu bëgg a dégg rek. lay mooy loolu mooy ñëw DG am na ñu war nga ñëw taxaw wala sa bopp ci télé bi ñu koy gis à longueur de journée 24 heures sur 24 moom mooy feeñ ci télé bi lii moo am RTS lii la ñuy dund lii moo fa am kon loolu dafa doy